sëñ bi bi ñu doon présenté ñi la xamul naka lañ lay présenté. waaw sëñ Serigne Modou Mbacke Bara Doli ni nga ko waxee léegi di setu Serigne Touba ci côté yëpp euh, di wàññiku nekk kilifa diina ci réew mi. Euh, beneen bi ci tegi tamit nekk responsable politique euh, di acteur politique ci réew mi euh, waxtu yi ñu toll nekk représentant politique APR au niveau du Touba nekk président rassemblement famille de lycée du Sénégal pour soutenir président Macky Sall nekk coordinateur mouvement taxaw Macky Touba. loolu daal ci gàttal euh, ci wàllu yëngatu gi ci lool lañ ci mën a présenté sëñ Modou Bara Dolly Mbacké. léegi sëñ bi lan moo indi sa dugg ci politique waaw ñaari question la li waral ma dugg ci politique hmm. euh, loolu moo jiitu sama jàppale président Macky Sall ndax 89. Euh, ci laa njëkk dugg ci parti démocratique Sénégal pour jàppale président Ablaye Wade ci jamono yooyu boobu nag euh, jamono yu jafe woon pour rawatina ci jàppale Ablaye Wade waaye rawatina nga doon ab sëriñ di jàppale Ablaye Wade ndax euh, jamono yooyu politique bi wuute nag nii jamono ji mel ci guddi yi ñu toll alors que ñu jànkonte ci lu bari ci ay difficulté mais te teewut ñu am ay engagement ak i gëm-gëm continuer gëm-gëm yooyee ngir jàppale président Abdoulaye Wade ba mu nekk fii mu doon loo xam ne suñu gis-gis it boobu lan ci amoon mooy ñun dañoo gëm ne bi ñu ay sëriñ danoo gëm ne tamit wàllu politique bi faw ñu di ko doxal pour jàppale réew mi war nekk tamit jàppale suñuy gox rawatina Touba gan bokk parce que li ma gëm euh, waxtu wu ne ngay am yooyu soxla di leen ko demandé pour nga sóobu ci géew bi bu boo amee soxla bokk ci la koy doxal nga bokk ci ña ña di ko doxal ci ku bokk ci ña ko doxal kon mën a sa gox doo mën a fàtt sa ñooñ kon loolu taxoon na dëgg-dëgg maa ngi jël sama benn xarit toujours day wax ne euh, moom ba muy dugg ci politique muy euh, sëñ Aliou Dia day wax ne même acte bu xalaat boobu ñun même xalaat boobu lan amoon mooy waxtu wu ne euh, gàmmu jot wala màggal jot ministre bi ñëw wala kenn ñëw ñu ne la ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay yóbbante ci nguur gi boo demee nangam amuñu ko nangam amuñu ko yooyu yëpp mu doon yoo xam ne nii dañ ko daan doxal di ko gis ñu ne nag kon lu tax ëllëg ñu naan nangam ji ñu koy yóbbante ñu bokk ci dëkk bi soobu ci géew politique mën a jàppale sunu askan mën a jàppale sunu gox beneen bi ci des ñu mën a jàngat ne tamit réew mi ëllëgi si biir danoo war a gëm ne sëriñ si ah waruñoo toog di seetaan ndax damay wax ci samay interview yu bari wan ne sëriñ si ci jëmmi boppam ñoo gën a xam jàngoro yi wala yitt population bi ndax waxtu ne dana dem ngénte wala ñu dem demub dëj ah wala ñu dem may soxna kooku nag yaakaar naa ne ku la gën a jege population bi amut kon nag sëriñ si war nanoo mën a soobu ci géew politique politique mën a fexe ba nga xam ne réew mi dañ ci mën a jàpp ci li koy tabax ba ba nga xam ne ci ay qualité ay valeur ay mandarga loolu moo ñu tax dugg ci politique ak jàppale sunu askan mm-hmm. beneen question bi it ma dikki ci kon euh, muy daani la guloo ko muy sóobu ci jàppale président Macky Sall président Macky Sall ñi nga xamante ci biir parti démocratique du Sénégal yi mën na noo jàpp ne mouvement bi njëkk taxaw pour président Macky Sall muy am Wade ànd ak Macky jàppale Wade avant muy Euh, nekk directeur de campagne euh, euh, parti démocratique à fekk na taxawal mouvement boobu ba tey ji am na kilifa yu bari ci biir APR ak ci biir PDS yoo xam ne àndoon nañ ko ak taxawal ko ngir accompagner président Macky Sall ci 2007 yi mu nekkee directeur de campagne au niveau du kon foofee la sunu jaxasoo amoon foofee la sunu jàppale tàmbale woon mm-hmm. ah, ñu dem bi mu génnee PDS nag man ma des biir PDS parce que am na ci loo xam ne ci wàllu famille la fa tax ma des biir PDS bi nga xamee dem na ba PDS daan nag ma ne nag damay la ma fonde woon tabaxaan ko yëkkati woon ko ma continuer jàppale président Macky Sall pour man koo fexewaat élection yi ñu jëm mu mën a waraat amaat ndam incha allahu rabbi euh, sëñ bi yow da bokk ci kilifa yi nga xam ne yi kotuwaay maanaam yi gisante ak président euh, yàgg na ci nga bokk mais léegi ban image bu forte garde ci Macky Sall image bi la frappé boo boo xam nit ñi xamuñu ko ci moom. Euh, euh, bi ci jiitu muy nit koo xam ne ku doylu la. nit koo xam ne ku gëm yàlla la. image boobu lu may téye ci moom la. parce que gëm gi yàlla mooy bi nga xamee ne mbir yi métti na ci biir PDS ñu ànd ak moom nekk ci moom ba metti ba metti dafa xëy benn bis jël ay engagement ca lu jafe. ndax parti yi ci bari boo ca nekkee ba am ci difficulté ñu ci bari dañ cee nekk ah des ca di defante defante ba ndàq leen waaye moom moo jël ay engagement am pour génne delloo bépp fonction boo xam ne nii PDS joxoon na ko mu delloo ko loolu nag ku gëm yàlla koy def ànd ak yàlla loolu yëpp nag toujours lu ma marqué la ci moom ndax courage la force la boo xam ne ñu bari amuñu ko leader yu bari fi mu doon nii boo ko gisee euh, ñu mel ne Khalifa ak ñeneen ak ñeneen damay toog ba yàgg ma ne leen ñoom Macky Sall da leen jox exemple li kenn ku ci ne ci ñoom la nga nekkoon boo demee bay yàgg munoo dox ak ñoom kon da war a am gëm yàlla mooy ñu ci bari seen gëm yàlla dafa des mm-hmm. ah en général boo seet ba ci idée ak ñeneen ak ñeneen seen gëm yàlla gi des na mais Macky li ma gën a marqué ci moom mooy gëm yàlla googu mu amoon ak doylu googu mu amoon mm-hmm. kooku moom lu ma marqué ci moom la lu ma téye ci moom la mm-hmm. waaw gis naa ko it ci biiram gëm-gëm boobu mu di ko doxee ba ñu bari dama leen di wax ne ci Sénégal eh, ñu bari xamuñu ko bu ma waxee ñu ne ngóor gi yow ma ne moom dafa gëm ne yàllaa ko jox yàllaa ko mën a xañ loolu moom lu ma xam ci moom la ci ne loolu lay porte beneen bi ci desit nga xam ne day complété benn boobu ba ñaar muy ba ba mu amee ba léegi si lu ne mi ngi koy dégg ci réew mi ñu koy wax waaye moom ci parmi leader yi yi nekk mel na moom nga dégg musutu génne ci gémmiñam wax lu ñaaw kenn musu ko dégg kon loolu it bokk na lu ma ci lu na ko fi ah ci leader yi fi ne ñi ñoom ñëpp kenn ku ne génn ngi sa gémmiñ wax lu ne ba mu des moom kon loolu it bokk na ci li ma ci moom mais mais mais la nga xam ci arrestation Khalifa Sall arrestation Karim Wade ñu bari ñu ngi koy ŋañ. waaw xam nga loolu bëgguma cee sori ndax li tax bëgguma ci sori mooy man damaa am confiance sama justice di réew. gëm gi ma gëm sama réew gëm justice ni muy doxee xam ne président de la république ak wàllu justice ay magistrat loolu beneen côté la kon loolu moom daanaka man na noo wax ne lenn lu ci ne yoon doxal na ca lam ca war a doxal dama koy respecté bu dee bu Khalifa Sall nag verdict bi génnagut mënuguma suñ réew mu doxal ko la ci des nag ñu xool ba xam justice bi lan la ci doxal parce que man am naa confiance ci justice su réew tey tey sëñ bi euh, en tant que président mu lay mu laaj euh, noo gisee dëkk la waaw li ma koy tontu. Euh, surtout ci six ans yi mu def. ci six ans yi mu def. Hmm. bu dee bilan la am na bilan man. toujours damay wax ne président Macky Sall maanaam diirub presque 40 ans presque yu socialiste yi euh, ak 12 euh, ans yu Ablaye Wade boo ko boolee presque 50 ans ah 1960 ak léegi alors que ne man li ma jàngat ci moom ma xam ko ci moom euh, mooy que ne bilan moom kenn waxtu ko bilan am na ko. bu dee ay yoon la bu dee ay assainissement la bu dee ay pont la bu dee lu mën di doon bu dee wàllu wàññi dund bi bu dee maanaam wàllu euh, lépp loo xam ne aju na ci lu nit di jëfandikoo mu mu tegaat ko ci aw yoon kooku moom bilan kenn waxatu ko am na bilan bilan moom bu mu liggéey ci réew mi kooku moom ci six ans yi am na ko bu wér a wér wér ci côté yëpp nag ca bala may ngay xam loolu mooy nga dugg ci àll bi yaakaar naa boo duggee ci àll bi dangay gis dëkk yu bari yoo xam ne xëttali na fa ay yoon xëttali na fa ay raara xëttali na fa tamit jàppale leen ci wàllu maanaam lu jëm bourse bourse familiale lu jëm ci euh, maladie kii voilà ak lu jëm ci lépp loo xam ne nii ak PUDC bi kon jàpp naa ne foofu ci àll bi doon na loo xam ne nii tamit liggéey ni ci liggéey bu rëy yëmul ci rek ci taax yi taax yi nag yaakaar naa boo duggee euh, Dakar gis jëm ñaajo gis la fa ne gis ni mu eggalee aéroport bi gis quatre cent quelques euh, millions jëm Ila Touba jàpp na ne ca man toujours damay wax ne c'est normal bu ma gisee ñenn ñi di wax dama ne leen Touba c'est capitale deuxième cap ville capitale du Sénégal capitale nag waxuma ko ci ne lu ñu def ci kayit la mais population bi fa la ëppee à kon foofu nag mu nekk nag ci biir centre bi kon nag jàpp naa ne autoroute bala muy am fenn Touba la war a njëkk amee kon loolu ndax réew mu mën di doon noonu lay doxee kon loolu bu ko defee foofu mu doon loo xam ne du ma ne njëriñu waa Touba kese la mais njëriñu waa Sénégal gi yëpp kon jàpp naa ne tamati bilan moom kenn waxatu ko am na ko bu amee lu des daal mooy nan bilan politique man ki laa nekk ba léegi si di ko faral di discuter di ko faral di wax na bàyyi xel wàllu politique gi parce que am bilan doyut ndax Sénégal dafa am nun baaxoo Sénégal mën nañoo wax ne li liggéey di ko def ñu ci bari boo xoolee intellectuel di xool bilan ñu néew lan ah ñi ëpp ci Sénégalais yi dafa am loo xam ne nii def na ko sax naam ci wàññi dund bi wàññi lépp lu aju ci doomu yi ak jàppale tamatu béykat yi mais na bàyyi xel côté politique bi bu mu nee na bàyyi xel côté politique bi nag mooy fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ànd nanoo ñoom ñi nga xam ne ñu engagé leen ngir moom mu jox leen ay doole ñu wàcc ci seen i département wàcc ci seen région liggéeyal ko pour mën a am ndam kooku moom mooy li fi des parce que ñu ci bari ñi ngi ci dëkk bi ñenn ñi boo leen wooyee doo leen jot ah waaw ñenn ñi boo leen wooyee doo leen bari dañ ne yenn kilifa yi dañu hermétique. Mhm. hermétique même maanaam dañoo dañoo tëju. Mhm. Euh, dama lay confirmer. Mhm. ni kenn mënul jot ci ñoom. moom nañu jot ci seen i responsable. waaw sentir ñu leen daal maanaam. waaw waaw loolu lu am la nee naa la ñu ci bari ci ñoom danoo tëj seen i téléphone sax da nga leen di woo doo leen jot. ñu ci bari ci ñoom da nga am a wax ak kenn ba am accès ya nga xam ne moom la war a yor ay armes pour war a mën a saafara yooyu ko am ak ko kooku moom beneen question la waaye li wér ki wóor daal war nañoo mën yi président yi war naa gën a a wax ci loolu ñu wàcc ci seen i région wàcc ci seen i département dugg ci nit ñi jànku parce que nit Sénégal yi dama baaxoo leen élection yi buñ eggee am na ñoo xam ne nii président taxul ñuy wate mhm. am na ñoo xam ne sëñ Modou tax ñuy wate am na ñoo xam ne ma Samba tax ñuy wate am na ñoo xam ne ma Demba tax ñuy wate ndax kenn ku ne ci ci ci Sénégal yi day faral di wax ne diw de xamul nu ma koy def. parce que nam la dafa tax. dëgg la ah? ci yëgg nam la def a tax. ci man gis naa ne. Mm-hmm. loolu wàccu ni mu war a doxee ak ni ñu ko war a doxalee. bari na loo xam ne ni daal ah, des na. kon kooku moom moom moo bu fekkee am na lu ñu war a wax daal. ci anam googu la ñu war a wax. waaw dëgg la mm-hmm. léegi léegi sëñ bi ñu ñëw ci euh, mm-hmm. Touba. Touba remarqué nañ ne vraiment. Euh, élection yi fi fi jot bi jafe-jafe. pour am fa benn benn représentativité. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaw donc fa daal doole ji mu war a am. loolu en tant que parti pouvoir jaaxal nañu bari. dafa APR fa am benn percée. politiquement santaan. waaw loolu am na parce que la ko waral am na benn. muy jànkonte yooyu ak problème yooyu ci wàllu gu mel noonu euh, am na fa ndax la tax mu am fa euh, mooy Touba dëkk la boo xam ne c'est deuxième capitale laa la waxee ci population kon tey ji waroon naa am sax ay vingt ba ay quinze responsables yoo xam ne nii ñoom ci seen jëmmi boppam ñu ngi leen jox ay doole ñu ne ci dëkk bi di liggéey kon boo xoolee Dakar gi war nga xool yeneen dëkk yi day am ba vingt responsables yoo xam ne ay ministres lan ak kenn ku nekk nekk ci dara di liggéey ci biir lu mel noonu nag ñoom ci seen jëmmi boppam kon war na noo mën a jàpp ne côté bu mel noonu am na fa problème problème ba mu fa amee muy wàll gu mel noonu nan ko war a doxalee doxaluñu ko muy wàllu maanaam dooleel gi ak jàppale gi ba tax na unité boobu mënut a nekk waaw waaw euh, sëñ bi euh, dañoo remarqué yow responsable politique ba APR mais lan moo tax parti au pouvoir am jafe-jafe Touba te nekk parti au pouvoir te élection yi weesu référendum ak législative yëpp APR am problème foofu ay jafe-jafe la boo xam ne ci nin ko war a doxalee yoon yin ko war a jaarale yoon yooyu lañ ko jaarale ndax man toujours damay wax ne Senghor ab chrétien la woon. ci teewut dafa amoon Touba Ablaye Wade avant muy naax ay murit nit ñi doon xel ñaar ci après dafa gagné tubaa euh, président Macky Sall mi ngi liggéey ci loo xam ne Touba waxuma li muy def ci ay yoon Touba fi mu toll nii boo demee mbedd boo jaar bu ne ña ngi ko xàll mu doon ay tali ñu continuer di fa liggéey loo xam ne kenn xamul nu mu toll plus autoroute bi hmm? plus nag yeneen i mbir ci yoo xam ne ci assainissement plus plus li nga xam ne mi ngi koy jàppale kilifa diine yi ah waaye loolu lépp lu tax duñ ko gañe dafa am ay ay mbir yu tax ñëw fexe ba gañe ko yooyu nag bokk na ci benn président moom ci boppam am na ci part responsabilité parce que part responsabilité bi mu ci am mooy dafa mélangé ñaari mbir mooy wàlluk sëriñ ak wàllu politique loolu nag ku mel ne man placé naa pour wax ko parce que am naa wàlluk sëriñ am na wàllu politique côté boobu nag mu mélangé séparé wu ko xaajale wu ko côté boobu mu bokk ni ci li indi erreur ba tax mu wërta mën a gañu Touba beneen ba ci tegi tamati mu am fa ay responsable yu fa nekkoon daan jotee ak di wax noo xam ne waruñu koo wax ak waruñu ko faa comporter ci dëkk bi ba nga xam ne waa dëkk bi dem nañ ba bëggatuñu leen a gis loolu it bokk na ci la nga xam ne mu xaj na ko xaj na ko xaj na ko euh, euh, euh, mu gañe ko beneen bi ci des bi ci des xam nga maanaam duma ma kenn kenn ku ñëpp xam nañ ko Moussa Cissé Lo comme comportement yam yore woon Touba bu fekkoon ne yoru ko dana am côté boo xam ne nii tey mën nañ ko mën nañ caa am ah, yaakaar ah waaye dama ne la am na côté boo xam ne par responsabilité boobu benn wi président ci la bokk parce que moom daa jaxase ñaari mbir yu bokkul muy wàllu politique ak wàllu sëriñ hmm? bu jegee ngir wax ak euh, euh, jëm ci politique bu ko waxee ak sëriñ si yam ca ah, bu élection jotee wala dem ci biir nit ñi sëriñ si duñ ko demal ci biir nit ah bu fekkee tamit beneen côté bi cee des la lu mel ne Moussa Cissé Lo moom it nam fa doon doxale man mii di wax ak yow benn bis jël naa sama téléphone woo ko bis boobu mu nekk Mbàkke jaar sama kër ma ne ko Moustapha mu naa ma ne ko tey na nga doon comporté woo ba nga nekkee opposant bokkut ak boo nekkee ci pouvoir tey da nga yor caqbaat borom caqbaat nag day am lu muy comporté noo xam ne nii comportement ba muy comporté wu du tax militants yi jëpp la du tax nit ñi jàpp la ci it lu bari war ngaa mën a am masla ak sëriñ si ba na nga doon waxee du bokk ak na nga nam doon waxee kon côté boobu ñaari mbir yooyu bokk na ci li tax ñu koy ñàkk beneen mbir bi ci desit muy jàppale responsable ya fa ak nommé fa ay ay ay cër yoo xam ne ñooñu danañ mën a concentre sur le plan politique loolu it ba tey amu fa daanaka mënoon a wax ne depuis avant élection yooyu lu ko jiitu ba léegi si cër yi nga xam ne war na koo jox ak i wàcc ko léegi si joxu leen ko ca foo xam ne ni nekk na deuxième capital du Sénégal waroon naa am ay ministre waroon naa am ay directeur waroon naa am yeneen ak yeneen ak yeneen ca loolu lépp amu fa kon nag jàpp naa ne yi bokk na ci mandarga yi ak xuloo bee xeex bi ca comme que xuloo bee xeex bi damay wax ne ñun guddi yi ñu toll ak lu coow bu ma bari bari bari rek war nañ koo mën a teg à côté parce que dafa am dañoo am beneen intérêt bu ñun ñëpp war a jàkkaarloo. justement mais euh, euh, euh, man amut kenn koo xam ne nii rek mën nañ koo wax ne xuloo la wala ñàkk demee la man dama am ay principe man bu may def politique damay def politique. sama côté sëriñ dama koy lem ba mu ba ba mu set wecc raxas ba mu dama koy lem ba mu lemee ma teg ko à côté def politique su may def politique. politique googee nag dafa am ay principe principe yooyu laa dajale woon taxoon ma daje ak Cissé Lo la ma ca daje woon ak moom mooy am samay gëm-gëm mu bàyyi Touba ma ne man bëgg retourné waa Touba ma ne ànduma ci parce que da koo bàyyi woon dem ci am na sabab bu tax mu bàyyi woon ko dem kon booba léegi si fa lu faluñu fa ay coordonnateur yëg dooleelu ñu ñu bàyyi ñu ñu xel ñun responsable yi kon ci yoon ñun dañ ñoo war a dooleel bàyyi ñu xel parce que euh, man par man mi nga xam ne fond bokk naa ci ñi ñu fondement woon euh, PDS sama waajur yoroon fédération bi bu PDS daa nga may at gañeel Ablaye Wade samay rakk tey yoraat wàllu PDS bi gañ gañeel Ablaye Wade kon man xam naa góom bi fan lay xasane góom boobu nag fan lay xasane mooy li ma la wax léegi ci li jàll principe yooyu ak wan yoon li ñu jaar dama koo xam kon nag képp koo xam ne seet naa la nga jëm si fa ca yoon wa ngay jaar bokk ca wooy yàq ca ma ànd ci ma ma ma fas yéenee bokk ci ñi nga xam ne jàpp naa ne déglu gin may déglu bu ma ko déglu woon kon lu bari dana sensé ca loolu lañ defagul ndax xam naa démb xam naa tey alors que ñooñu nag ñëw ku mel ne kooku nga ma tudd muy Moustapha principe bi ma boole woon ak Cissé Lo mooy principe bi ma boole Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté ñëw na Touba daanaka mënoon a wax ne Euh, ba mu gëjee Touba kenn xamul 1900 saa la kenn dëgg-dëgg fa la dëkkoon ah fa la jàngee ah, ay mbokk ma nga fa mais nangami at mu bàyyi Touba ah, dem na ba nga xam ne yoonu murid sax bokku ci euh, dund ko woon Ibadu Rahman la woon ah, xëy benn bis nekk groupe parlement pendant nangami euh, at muy jiite groupe parlement bu bu bu APR musutu ñëw màggal musutu ñëw ngénte musutu ñëw dëj ah musutu ñëw dara. xëy xëy benn bis génn ci groupe parlement bi ñu def ko chef de cabinet mu takk ay bagages am wàcc Touba mais bi mu wàccee Touba li gën a pire mooy ñun ñoom fa fekk ñuy jàppale euh, euh, euh, APR kenn kum ci dem ci këram wax ak moom amut loolu dañ koo xëy seen ko muy dugg ci biir terrain bi dugg di génn di organiser ay audience yooyu yëpp mais nga jàpp ne loolu dëgg la ah. mais nag loolu am nag principe boobu ma ne lii duñ ko seetaan parce que lii du dëgg président bu ñu dee dooleel ñun ñi nga xam ne mosuñoo génn tubaa su lépp Touba lañ ko def mosuñu ko génn ba waxtu wi nañu dooleel ñu jàkkaarloo ak ak ak population wax ak ñoom mais suñ ko gisee moom ñu xëy def ko chef de cabinet mu pendant nangami at musutu ñëw Touba bërki dem mu taxaw fii ci local yi naan liste ba fa nekk muy liste bu sëñ bi tubaa ak dëkk yëpp yam dañ ko war a def parité tubaa Touba nekk spécial hmm? léegi loolu matugut ñaari at ñetti at mu ñëw wàccaat ci dëkk ba ah di sol ay si ay visem ah ku wax mu raam sukk ci loolu gisuñu mu ko daan def nit ñi dofuñu danoo yor ay bopp di xalaat ay lékk nag mu ñu yàqal duñ toog di ko seetaan danaa ko dénoncé comme dama dénoncé woon ne su si d'accord ma ci retour Cissé Lo mais tey fi mu doon nii li ma ci ñàkk ñàkk d'accord ci retour Cissé Lo Cissé Lo retourné Touba moo gën fopp Moussa Diakhaté continué nekk Touba ah mais léegi nga yaakaar ne sëñ bi comme yéen euh, da ngeen bokk benn intérêt commun nga yaakaar ne ngeen ngeen defoon benn unité bu bañ a nekk nag unité de façade unité boo xam ne bu dëggu la comme dañ dem ci quelques mois de la présidentielle nga yaakaar ne loolu gën waaw mais loolu jaay mooy li gën hmm. waaye unité avec qui unité ak ña fa nekk kay hmm. ko kay ci lay xëy ci lay gont ci lay dox hmm. ka bàyyi taxutul ñuy wax unité kene bàyyi na fa taxutul ñuy wax unité ka fa dëkkut du ma ne dëkkul fa la dëkk waaye ki bàyyi mi at Touba xamut la fay dox xëy benn bi sakki bagage am ñëw waxut ak ña fa nekkoon du fa dund waaye bu ñu wax unité xanaa ñooñu taxul ñu wax unité ña fa nekk nag nekkoon fa ak ñun ñëpp di liggéey nekkoon fa ci PDS nekkoon fa ci socialiste nekkoon fi feneen nga xam ne mosuñoo génn Touba politiquement fa la daan politique loolu kay man waxtu mu ne maa ngi ciy dox di wote unité pour ñu nekk benn liggéey mais li ñu bañ mooy récupération liñ bañ it mooy lii ñu xam ne mbir mi fii la jëm ñu bëgg bañ nit ñëw wàcc di ñu ko yàqal ca bu continuer ak yàq lay jur loolu la ñuy teel a dénoncé nan ñu bàyyi dëkk bi ñun ñu fa nekk génn ñu fa am capacité war a mën liggéey xam fan la góom bi da xasaree ñu dooleel ñu ñu wàcc ci terrain bi gañeel président Macky Sall élection yi ñu jëm pour man ko falaat deuxième euh, premier tour man loolu laa gëm mais bii ñuy négliger ak bàyyi ñu mel ni ñeen ñi wër di yàq ah buñ demee ca ca ca jeexatal ba du doon lu gën man nag duma magum ah xamoon naa ko waaye magam waxoon naa ko laay doon. dëgg la dëgg la waaw mais léegi sëñ bi avant question. Euh, ku mel ni opposants yi ils sont vraiment de d'occuper le terrain ku mel ni Idrissa Seck def na fan yee ñu weesu fukki fan Touba dem Darou Mousty dem fu ne ban ban jàngat nga ci am. waaw kooku def naa temps yi benn point de presse wax naa ko ci. ñun waa Touba mënuñoo fàtte démb démb la rek Idrissa Seck di démb kooku mënuñu ko fàtte. li wax jëmale ko ci Serigne Saliou wax ko jëmale ko ci sëñ Mourtala tuur fa deret ci dëkk bi sëtu sëñ Touba wax ko jëmale ko ci sama waajur waa Touba ñoom mënuñoo fàtte loo xam ne li matagut démb la woon ca loolu démb rek la woon du du du du du du at yii yëpp barki démb la woon kon jàpp naa ne waa tubaa moom fàttewuñu loolu kon yee muy def ak di ko doxal ak di ko wax ak yëpp ak fi nit ñi nekk bokkut Idriss Seck dafa rate ak président man sëñ Modou maa wax loolu fi mu waree a nekk président da ko rate waaw dama ne moom fi mu waroon nekk en tant président. Uh-huh. da koo rate moom moo waroon nekk noonu mu ko waxoon foo. foo président foo. foo président foofu la rate du nekk mukk président ci kaw suuf. man maa la wax lii de na na leer. man nag di gunge. waaye nekk président moom raté na ko kooku moom man sëñ Modou maa ko daanoo sa wax ko. dëgg la léegi léegi nag ñu jëm ñu jëm dernière question bi ci élection. Mhm. sëñ bi est-ce que am nga yaakaar. Mhm. président Macky Sall euh, rempli maanaam toogaat deuxième mandat ak dëkk bi am tant banta vante ngay mérite président ci Ila Touba ci couverture maladie universelle mais ñu bëri sëñ bi ñu ngi ñaxtu euh, tan dëkk bi doxul xaalis amul ndax am nga yaakaar ne président dina mën a rempli waat toogaat. li ma la wax daal moom laa wax ci question bi nga ma posé woon ci biir question yi bu fekkee bilan mooy tax a toog kooku moom am na ko dana toog. bu dee côté bilan politique la boobu mooy bi ma jaaxal fi yii ma toll di waxee yow muy maanaam li ma la waxoon na la nit ku ne boo ne xamuma nu may def diw na la diw dafa tax ci am na ñoo xam ne bu ñu wate du moom moo tax ñuy wate am sëñ moo tax ñëw te wala ma sàmm wala ma demb côté boobu nag moo ma moo ma def moo ma inquiété tuuti muy fii ñu toll danoo waroon a commencé liggéey politiquement wàcc ci terrain bi jànkonteeg yitte yi soxla yi doomi aadama yi tëli yeeg meuble yeeg yooyu yëpp pour man doy na instant bi ñu toll nan dox ci soxla yi doomi aadama yi ci côté sociale bi ah politiciens yi wàcc ci terrain bi ñu dugg ci biir nit ñi wax ak ñoom présenter leen suñ bilan te loolu mënoo ko def lu dul bilan boobu mënoo ko def lu dul dafa dangaa dox ci social bi ba pare. parce que soo doxul ci social bi boo ko dee tegal bilan nu mu koy déggee. ah maanaam saako bu fees bu bu ci dara nekkul nu muy taxawee. nit bala nga koy tegal bilan da ngay dem ak moom ci côté social bi jàppale leen. dox ci jàppale doomu aadama yi. ubbi ubbi xoolal ubbi buntu yi. sew nit ubbi bu ay bunt seeni bunt. nga dooleel say nit ñi wàcc ci population bi. Ah? waaw non man ba tey mën naa nekk waaye li wér ki wóor daal question bi nga wax pour ñu mën a gañee élection yi ci li ma jàpp bu dee naa la am nañ ko waaye li ma jaaxal ba jaaxal ma nee naa la ci côté politique bi laay inquiété woo pour man instant bi ñu toll président parce que amul ku muy jàkkaarloo waaye li ma ci inquiété wu mooy côté sociale bi côté politique bi foofu moo am fu des nan ubbi bunt yi ah wàllu liggéey bi tamit ñu ubbi ko entrepreneur yi mën ci gis seen bopp ah nit ñi ci seen jëm bopp mën ci gis seen bopp wàllu social gi di jàppale doomi aadama ah, bu boobaa wallaahi la sim suñ ko defee waxtu wii de leer na man bala ñuy egg ci élection moom waxuma la dara waaye premier tour la ne gagné moom loolu ma leer mais nag suñ ko defut ba élection yi def ay deux mois ki trois mois ah man sëñ Modou moom xamatuma ci tus te nag li ma lay wax rek du ma magam waxoon waxoon waxoon naa ma xamoon naa ko waaye magam waxoon naa ko laay doon man li ma bëgg waxtu wii la toujours dama koy wax ci samay français maintenant maintenant. au sommet. waaw waaw man toujours loolu laay wax. ah waxtu wii le président war a nit ñi wàcc ci terrain bi mu ubbi bunt yi. concentré ci wàllu politique bi. ja responsable yi wàcc ci terrain bi. ñu jàppale nit ñi ci wàllu social. bu ndoxee tuuti a six mois quatre wala sept mois wallahi de si bu demee ci campagne bi day yomb lool ñu gañ a ndax bilan moom fa tabaarkalla am na kenn waxatu ko